waaw sëriñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax daayira yi nga xam ne ñoo fi daje ci siyaare lañ siyaare la ci bis bii nga xam ni bis la bu tedd fii ci suufu ndindi di suufu sëriñ fàllu ñu fekk si la fi ak nii ñu la fi fekkee ci cofeel ak ci bëgg ak ci yittewoo ak ci safoo ak sa mbir yemalewuñ koog menn mbir sa mbir mooy mbirum Serigne Touba di mbirum Serigne Fallou Mbacké Serigne Fallou Mbacké nag weer wi di aw weeram di rajab rajab na ñu koy woowee rajabul fardi mooy weet weer wi nga xam ne daa wéet léppam daa wéet sëriñ Fallou Mbacké mi mi ci feeñ ku ne xam na ne daa wéet ndax sëñ Fallou wax na ni ñun njabootu sëriñ Touba gépp dañoo ne ci pays sëñ Touba fa la ñu fekk lootaabe ñu indi ñu waaye man pays ba ma fekk daa fees dell mu ne ma dama bëgg a dem àdduna xettali ji mbindee fii sëriñ Fallou ne ko man danaa la fekk toog sa wet sëñ Fall nee na bu ma ko waxutoon loolu mën naa fomm sëñ Fall loo ko wax de rajabul fardi dafa am ñeenti weer yoo xam ne kenn du ci xeex muy muharram aw diggu tabaski aw tabaski ci boppam ñetti weer yooyu ñoo taftaloo wi leen ñeenteel mooy weer wii sëñ lu nekk waaye daa beroo ak ñoom jamono yi nga xam ne moom la yonent bi daan nekk di jàkkaarlook noon yi ñeenti weer yi ba ma saan tere teru yàlla da koy wax na bu ci xeex kenn koo ci xeexal xotti nga war may weer yooyu weer wi nag daa bokk ci weer yi nga xam ne dafa wéet daayira yi dajaloo ñëw di la siyaare si sëñ lamp sëñ afe jaw mii di doom di mbokk di xarit aafe xër na ci yow aafe bëgg na la aafe yittewoo na sa mbir waaye nag jaadu na ndax damay wax ni ibnu abbas abbas aka bëri doom waaye bu ñëwee ibnu abbas ñu xam ne abdoulaye ibnu abbas lañ jublu jar wax tur wi waaye sëfoori sénégal yi aka ñoo bari waaye bu ñu nee sëñ Bousso Sëfoor dañ daal di xam ne sëñ Bousso moomee la mu sëñ Fallou moomee gone yu ndaw yi nekk ci jamono yi sax xam nañ loolu kon bu ñu demee ba ab sëtam gis la sopp la bëgg la jaxasoo yow ba mën a indi mbooloo mu toll nii ci yow loolu dañuy wax ne daa jaadu su ko defatoon manes na koo dajeeg moom sax laaj ko lu tee mu def ko ngal la bi nga xamee ne yàlla xiir na ko ci mu ànd ceeg mbooloo mu bari nag. ñuy borom yi pëstéef wax fi wax yu rëy wax yu rëy yi weesuwu lu may yitteel goo leen yitteel bëgg gu ñu la bëgg sopp gu ñu la sopp ngir bëgg laa liggéeyal te maa ngi leen di yëgal kat ni Serigne Touba nee na yitte. nee na looy sàkku te jëloo ko dajale ko ca ngir nga am ko dana jafe sëriñ Tuubaa dane wal tajmail immata fii ma tatlubu nee na looy sàkku lu ne na nga jël sa yitte def ko ci def ko ci ba ba mat sëkk ñi fi jël kàddu ñëpp nag bari mu ne su ci jaar ci ñëpp ci li ñu wax waaye kàddu yi day yenn lamp mi di jëwriñ joo xam ne daa ne si biir kër dajale mbooloo mi nga xam ne dajale na ko jëf jëm si ci yow xirtal la xirtal leen ci yow lampit lampit doon koo xam ni mbooloo mi ñoo daje ni yàlla dafa dogal bu bu leen di wax lu leen di xirtal ci yow rek la leen di wax te loolu dafa am solo lool nit ñi dana wax ne dana wax ne ay tànk mu mees na koo bank waaye am xel moom kenn du ko bankal kenn ndax xel la yàlla bindee noonu koo jëmee ci sëriñ bi koo jëfloo ci sëriñ bi dana ko xam koo defee ci sëriñ bi dana ko xam mooy tax mbooloo mi bëgg nañ la bëgg gu toll ni ku leen di woo ci yow danañ la wuy si ku leen di xirtal ci yow danañ la wuy si kazu rajab nag lu ci waaye laal ngir bëgg cee liggéeyal sëñ fallu yow lay dimbali yow it nga ànd kook sa kilifa gu tedd gi muy suñu abul baraka yàlla na fi yàlla yàggal tam gën a wér mu woote Kazu Rajab gi nii mu ko wootee borom Kazu Rajab nag moom kenn yebu ko sëñ Fallou kenn yebu ko nit kuy taxaw sax bopp sax tànk yeboo sëriñ Fallou li tax yëboo ko nag mooy ni mu toll ci yàlla ndax ki wax ni sama feeñ moom yomb naa xam ndax yonent bi dana lay mën a cëpp sëñ Moussa dal ni yaay doomi samsin wa xamar kanamam sàmba du man ginnaawam loolu ngeen wax ñu ne waaw mu ne ah yéen de seen sàmb mii bokk ci sëñ baa ngi fajkatu aajo baa ngi kii yàlla teral lool ci mbiram a ngi nii dama bëgg loolu ñu bàyyi ci xel de ndax sëñ Abdou Karim dafa neex a waxtaane xam nga lu tax mu neex a waxtaane li nga yëg ba tax nga di ko wax nit yëg na lu ko raw ki nga koy waxtaanil moom yëg na lu ko raw ki nga koy nettali ngir mu war koo xam yëg na lu ko raw ba àgg nañ ci sax am na ñoo xam ne booy waxtaan sax mën nañoo dem ba ci biir ñu ne waaye kii de li muy wax neex na lool waaye bu ñu bàyyi ba sëñ bi ñaanal nu waaye nan nu bàyyi li muy wax waaye sëñ bi ñaanal xam nga lu ko waral mooy yëg-yëg yi ak xam-xam bi am ci moom ak li yàlla def ci moom musumaa gis ku sukk ci say tànk te yëkkatiwut kàddu yu cant ne la ma ñaanaloon yow xàmmee woo soxla su ndaw ak ju rëy ndax da jubook boroom kun waaw xam nga loolu dafa doy waar sëriñ bi sa maam sëriñ Tuubaa moo wax ni sama saayir dama koy defar ba ku ma gis faama nag sëriñ Tuubaa ko wax de waa an akoona bisra kulli raayi ne dama bëgg ku ma gis xam ne mën a waaye koo gis mu am melokaan woo xam ne day tax nga di ko daw dum du du ni ki yàlla def ci moom mbiram taar lay njëkk a feeñal ci moom melokaan ji njëkk a feeñal ci moom woyof gi nag day ëpp doole loolu waaye nag doo gis jëmmam ba tekk ko woyof te waxut ak yow waaye boo ko gisee da xam ne kii fees na dell yàlla ngay terale yàlla ni nga koy teralee yàlla kat du mbindeef moo sàkk mbindeef waaye bëgg na ku ko teral teraanga jooji saa su ne ci nga sax di bëggloo nit ñi yàlla di defarloo nit ñi seeni jikko dama wax ak kilifa mu lay sant ci noo jëflanteeg moom ba mu yàgg mu ne ma makaarimul axlaax jooju ñu koy waxal daal xam naa ne nekk na ci moom ma ne ko a ah, déet makaarimul axlaax nag waxaluñ ko ko da naan da koo jëf di ko woote di ko dundulu mu nekk ci moom ba ñëpp déggandoo ko mu woote ko ndax moom moo ko wootel boppam doonul lu ko nit ñi jiiñ ma ne ko ma ne ko maa dégg ci làmmiñam mu ne Sëriñ Tuubaa mii maamam moo ko ñaan ci biir xasidaam gii ñu yooyee matlabu sifaay ne sun borom wa ablana makaarimal axlaaqi ma attahabubi bila siqaaxi nee na ma gisuma kenn ku ko taaw man ma taaw ko waaw yow sëriñ Tuubaa lu mu lu mu wax fes na waaye nii mu waxe mbir ñaan ko te moo wax ne lu ma ñaan yàlla may ma ko buñ doxoon tuuti rek ñu gis jikko yi gën di salfaañoo kon danañ jaaxle lool loolu yaa ñu ci yaa ñu xettali ne yaa jël mbooloo mi di leen ja di leen def jëfloo ci jikko yu rafet di leen ko wax loo di leen ko defloo ku la bëgg ku la seet si seet si la ku la nemmiku nemmiku la nit ñëw na ba fii ngir télé bu mu seetaan nga wax ci wax yoo xamante ne bii nee na moom fi mu toog daa yëg ne man am na lu ko manqué woon ci sa biir kàddu yi la jaar daa ñëw ba fekk la ci sa salle bi ne la dara taxu maa jóg lu dul sant si la ndax yaa wax ci télé bi ma seetaan la samay jikko baaxee ci damay faral di wax ni yow yàlla dogal ci lii ci yow taalibe yëpp taalibe sëñ Bàmba lanu soppe yëpp soppe sëriñ Tuubaa waaye bi loolu amee sëriñ Tuubaa da laa rafetal nga doon sëriñub jikko sëriñub jikko ne damaa bëgg ngeen déglu ma ndax wax la ju tënku ju ñu war a tekki kenn ku ne sa jikko nga am xanaa xamoo ne boroom jikko ju baaxul ci niñ koy waxee day xam ne jikkoom baaxul neexu ko waaye la ko ca nargañ nargañ na ko ca waaye seytaane daa defoon ni miinam de waaye miin yëpp dajji ko ko sànni teg say miin miin yëpp miin yan la seytaane tegoon miin yi ji ñaawal jikko yépp ngir bëgg ñëpp texee di yow nga jël miin yi defar jikko yépp ngir bëgg jikko yëpp texe moo tax seytaane bi mu fii dafa baax le loolu moom xam naa ko te kat wax nañ fii léegi am na ko wax ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yàlla bi mu koy tagg moo dàq julli julli na ba tànk yu new yi ba soxnaam ne ko sa tànk yu new yi xanaa yàlla jéggul la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj ndax yàlla moo ne ko jéggal naa la say bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mu ne ko mu ne ko afala akuna abdan sakura ndax duma buy sant yàlla waaye loolu lépp la muy bari bari bari alxuraan moom sóoratul baqarati ban naas yi ngi koy jàng nag di ci setantal kenn mënut a xam lépp de waaye man daal li ma ci gis mooy wa innaka la ala xulliqin azim yow de yaa ngi ci jikko ju baax jikko ju baax jii rek moo tax ma fonk la moo tax ma teg la fi ma la teg te yàllaa ko def ci moom sallallahu alayhi wa sallam ñu tagg ko ci loolu te kat gaa ñu baax ñi fi jaaroon dañ daan kolosante am nu ñuy defante ci seen biir li ñu ànd ànd ak yàlla Seydina Bilal danoo wax ni bi mu nekkee gaañi sabotage yi daa bari lool bu ne bu ne asadu ñu ne waaye dégg leen Bilal naan asadu mu ñëw naa dama xamul rek man ab tuubeen la gis ngeen ko de fi ñu woowee ak fi mu leen tontoo bokkul xam ngeen lu ñu ca jëlee yonent bi bàyyi ko ba mu noddu bay wàcc mu dégg gaa di tex texi kenn ku neree naan moom da naan gaynde gi nee na yàlla benn yàlla amul budul budul yàlla nee na muy dem muy ñëw yonent bi di ko xool mu yàgg mu ne gis ngeen bilaal mais di ñëw ñu naa mu ne leen fi muy teg tànkam yi ci dëri aljanna bi la koy teg loolu li ko may jikko ju rafet la jikko ju rafet jooji nag sëñ Fallu doone da cee yor sëñ Fallu mooy jikko ju rafet yaa ngi ñuy nettali barki démb ni daa am xaritam boo xam da ko daan fekk ridis baax lool ñuy toog di waxtaan bu sëñ fal demee dakaar këram nga ci ridis mu koy fekk di waxtaan di ko seet si fii Touba ba benn bis mu yëg ne faatu na nga ne sëñ Fall dem ridis te toog na lu mat at doog a dem ridiis ba mu demee ridiis mbooloo mépp fenn fu ay jóge fa benn bis rek mu xëy suba teel wàcc ci yi ñu waa sëñ Fallou fu mu jëm mu sol mbedd mi ndeke day jàlle ji kooka fekk am na góor goo xam ne mu ngi taxaw ci mi ngi toog ci benn buntu kër mooy toogkaay yooyu nga xam ne waaw sëriñ bi nee na kooku góorub tijaan la woon goo xam ne këram dafa nekkoon ridis bi nga xam ne nee na tëli moom lañ njëkk a godre ne ci Medina sëriñ Fall dafa ñëw benn bis bi sëñ Fall wàccee ci beres jaañ bi rek jël ri bi jëm ri 10 ne nee na booba foofa suuf la ci défoncé oto bi foncé oto bii ngiro ci suuf si daanaka taalibe dañoo yëkkati oto boobu fu sëñ Fallou jëmoon rek mënees na ko tuddee rek ndax taalibe yi puus nañu oto bi puusin woo xam ne ñoo gis oto bu ngiroo ñu koy puusee noonu daanaka oto bi tànk yi laalu suuf ba ci kër gi taalibe yi dem ci géej gaak fu aw doj jege rek ñu ñëw sotti ko ci fi oto bi war a jaar booba oto bi jàll na waaye suuf si nga xam ne fi la sëñ Fall jaar ba ngilo loolu lañuy bañ bu waññikoo mu dalaat ko ca suba Senghor ñëw fa di ko nuyu si ba Senghor ñëwee gis mbir mi ni mu demee ñu nettali ko Senghor na ko kon nag danaa ci participer mooy ñu godrone ko moo tax loolu ridis teel am godron nee na am na góor gu dëkk ci ku ñuy wax càmm nee na moom booba daal nee na këram ak kër sëñ Fallou nii lañ def séq yoon wi nee na bi nga xamee ni ñaa ngi tibb xeer yi fu xeer nekk la ñu koy tibb nee na boo fekk caam di tabax këram nee na as njal xeer soo xam daanaka taxu koo bari mooy ñi nga xam ne ñu am as soldu léeg la ñu copp ci jënd as xeer ba sol ba weer wi deyaat nee na boobu xam ngeen boobu jàllu xeer du rëy ne ko caam ñëw ne ko sama jàllu xeer bi daal ni mu tolloon sa taalibe yi tibb nañ lépp def ko ci yoon wi sëñ bi ne ko waaye nu mu tolluwaay caam xayma lu ko neex rek sëñ bi jox ko la ne ko bu saa bu jeexee rek na nga ñëw Touba ma joxaat la caam état sam bi këram gi noonu la ko tabaxee te sëñ bu ñëwee bu koy jox xaalis bi da koy tooñaale di kaf ak moom nee na léeg-léeg mu ne ko waa ndax cere mbuum ñam ngeen ko reeral neex a neex na de di kaf moom rek foofee dafa am góoru tijaan gu baax gu fa dëkkoon doonoon xarit Sëñ Fallu bëggoon ko lool nee na sëñ bi Musaani jóge Touba dem Ndakaaru fan yi mu nekk ridis yëpp góor gi dootu jóg ci kër sëñ Fallu saa yu saa yu sëñ bi ñëwee bu xëyee sëñ bi lay yendu si nee na ku mënoon a waxtaan nag te rafet nu muy waxee góor gi dem ba mu yàgg yàlla dogal mu wàcc liggéey tasanteeg jamono yooya sëñ bi gëj Ndakaaru nee na booba sax booba sëñ bi sax du wax lu ci jëm nee na bi mu yëgee ne faatu na ma sama xarit bi waaye sama xarit bi dem na waay yàlla na ko yàlla yërëm nee na sëñ fàll boobal foofu rek la ci yem tax nga xam ne dangay mel ni sax mel ni sëñ bi daa fàtt ne waayam la woon day mel ni doonutoon waayam si mbiru ko tudd def dara am benn jamono nag sëñ Fall dem ndakaaroo sëñ Fall am ñaari fan Ndakaaru ba ko ñetteel mu xëy benn bis rek wàcc ak noonu nga xam ne moom la yàlla bindewoon sëñ Fallu nam meloon rek ak noonu mu daan solo sol rabal yeeg tegale ko boole ci daldi kaalawu kaalaam gu jekk googu daldi jël far sarbe bi nag gàcc ci mbagg bi nga xam ne sëñ Fall lim sol yépp fii la yem ak bod yi boole ci daldi wàcc waaye ñu na waa sëñ moom fu mu jëm waay te booba tëli ridis bi tëli yi ko wër yëpp mu ngi fees mbooloo mi ay ponk la nga ci yoo xam ni lu ne mën nañ ko jënd nga xam dañoo dem toog ca garab yi la di xaar sëñ bi génn rek nga xam dañuy dem toog seeni toogaay di waxtaan ak kii rek sëriñ bi génn daldi jublu noonu yoon wi kër góor gi féete ñu laaj waaw sëñ moom fu mu jëm mu naa damay jëm sama xarit bi nga xam ne saa yu ma saan nee na am na genn góor gu toogoon ci bank yooyu ñu tabax ci buntu kër yi naka la seen sëñ bi di ñëw rek mu daal jóg daal làmb poos bi génn ci juróomi dërëm booba gaañ yi nga xam ne ñoo dar sëñ Fallou bari fa lool ay milliardaire lañu te booba ñu ngi fab seen nopp teg ko ci sëñ Fallou ngir di déglu ndigal rek góor gi dogale sëñ Fallou ne ko jëyi juróomi dërëm yi ne ko am yàlla jox la sëñ Fall na ko cëfit ne ko indi yàlla jox ma waay ku yàlla joxut doo am nee na loolu lii moom laa doon nettali nettali bi moo gën a jub moo gën a jot nit ñaa ngi sëriñ Falilu ngir mu leen di saxal ci seeni mbir te jii ngay sëriñ Falilu te mat na leen bàyyi suñuy xalaata yam ci géej mbàkke moo waral ñu di la ko melool waaye ku dul ki la mënta xam sa daya yow Serigne Falilou doonu nga yeneen ba te yaa fi doonoon Cheikh Bamba faale nga lamp faal mi leeral tey ji yoonu Bamba xamam nga yàlla waral Serigne Fallou mëstoon a xàmmee Tiijaan xaadir laayeen mbab chrétien ku ñëw mu teral foofu dem ñu di ko safoo ko bége ñii di ko duppee waaye xames nañ ñi lu ñu lug neex-neex boo fàttee xorom di cuune te ku faale Serigne Fallou ku ne buur yàlla fal la ngay mbër mooy fadlullahi wa rahmatuhu Serigne Fallou looy borom nga neel xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi aaya ba yaay borom ngir la ñu daa dégg ko wax ci Serigne Fallou lépp a ngi ci yow yaay Serigne Fallilou borom di ndeg Sam Aliya xeyraak bogo Cheikh Abdoul Karim Mbacké yaay Serigne Fallilou sigil nga Serigne Fallou Cheikh lu Mbacké mu soobee paaleen sagal nga maam Cheikh Ibrahima Fall yeesalaat nga Mbacké yoonu Baye Fall defar nga ay kàngam ak fóore yu ne nugum ngir war maa ki teggin ngay jàngale noo ngi ne nugum jàngale waat nga ak tarbiya ci yoonu murit xamalaat nga ñu ana naka la jàmm di toppee sag malakoog fa payum réewu diwaane di nga xam ni Cheikh Abdoul Karim Mbacké Fallilooy mbër mi ñu wóolu al amin nga yaay doonay baax yaa leen saafara sam ndënd képp a sampe ci géewub lislaam bi mbër yëpp a ngi far di la bàkk ndey yaay seen yilimaan bu la neexee di bàkku ndeyam nga ndam jarul di làqu xajatoo fenn jantu njolloon nga guni dàng kenn dina sa morom may ma ma xool soxna jaara bu so maam mariama ñu may ahmadul xadim moom la ñu duppee soxna Awa Bousso mi ñu may cheikh Mouhamadul Fadilu mu dellu ko duppee soxna Awa Faye mi ñu may cheikh Abdoul Karim yow njëkkante woo mbaax dangaa donn ngëneel adduna këfu la diine jamu la tasab naw la yebu la doo ku ñuy saña la ko mënal xaaroo kenn ci li la war cheikh Abdoul Karim Mbakke yaa mat sëkk la nga doon la gën fa mu gën a gënee fa la ñu la tànnee nga raw amul ku ñuul walis ku weex ku bëgg lu baax ku ne ngay kilifaam waa ji gam-gam la yaka wooy far sëg mbir dalaa xamul ndekoon mu fox nit sahaabi yi nde yaa fi doonay yonen xënu leen te daw wut si gaaw amul lor mooy borom jikko yu rafet yi doktooru xol yi faral suñuy ràggi xol mbàkke te defar ñun suñuy jikko yow kuy déglu say ndigal sax ci te bali ngay tere bu yàkkamtiwul kenn du ko tee am lu baax xam-xam lu mu bari bari ay teggin mooy li koy aar am leen yar ki teggin su ngeen bëggee am lu baax waxta zimo bi habdillahi jamian wala tafarahu faw ñu am ay jikko yu rafet bu ñu bañee xajjali ko kenn ak l'islam bi yaay mottali nde yaa matal yoonu l'islam bi yow rek a dajal tafsiral nga nu quraanul karim ci ay meloo ki jikko ba ñu dooni wàññi de say waxtu mësal neel ci dul ngërëm doo xaa jëlee ko par parloo mbaa jéng ko wut farandoo ñëpp nga boole yemale ku nekk jox ko mbàkke li mu moom doo jàpp nit ngir xeet xàmmee woo pël ak koy yoneen nga làmboo mu jaddit nga yow weesu nga ak sëriñ amuloo soxla ci dul yàlla sunu borom mboolem ngëneel yi nga làmboo taxulaa xàmmee kerekuk sedd muy taw mbaa muy nàcc tey sunu borom yaa nuy lekk sunu borom da yaa taxañ mbooleem yoon ne jëm fa moom waaye yëgal ni mbooleem dénkaan yaa ngi lay wër ngir bëgg laa dénk la ñu leen dénkoon ab wotakat bu mën a toy yeggee da yekkale ka mën a weesu fa mu jëm xalu leen guddi ñëw mbaa def ni jéeri waadan borom sugu géeju ngëneel yaa ngi bahrul hilmu Cheikh Abdoul Karim Mbacké yee salaat nga bu ñu ko jàppee mukk ab sëriñ mbaa de kon ñu def ko maas ngëneelam gu yaatu gaa waral Mbacké taxoog sunu mbon gi yaatu woyof tawam laa xëy la gërëm du nettali damaa fekkee keroog ci aliyo ba sëriñ baaray ñëw digg naaj bu tàng nga def defi tànku neen boole ceeg daw ngir tertu sëriñ ba yaa doy waar rëppeelu ci kanamu sëriñ baara di safu ndongo laxasaay bu xeebu bu gis boromam mam baara keroog ku fa teewoon ku ne yéemu nga ëttu mbàkke mu soobee ki paaleen sa jëf jaafay riir cheikh abo falilu gërëm na la ngir mbégteem gu réy ga faddu na juróom-ñeenti fan ci chaabaan jural nañuy ngëneeli chaabaan wata buy jar ay million nga fab boolee ki million jëbal ko mu farfab say bam jëbal cheikh yi fadilu cheikh yow foo mës jaar yaa fa jëf lu ñu naan la mbàkke jaajëf touba bogo fata jëfal nga fa cheikh abdoul fata lu waral ngërëm lay riir ba ta njabooti fadilu ku ñaan ñàkk Cheikh Karim Mbacke am nga ndam noppal nga say kilifa kenn déggu la te yaa li mat di wax déggeesu la jël nga sa lépp jébal Serigne Abo muy déglu Cheikh Sidi Muxtaar mboolem ngërëmal sëddi dajees na fi yow ngir yaa wane anam nees waay bi jëriñoo Baye Fall yoonu Murid Cheikh Abdoul Karim Mbacke roy teef nga kër Cheikh Rafal nangu ndigal ak sell gaa jëf li waral ngay soppeb gaa yi Cheikh Rafal yee salaat nga taarixu yoon wi te yaa jàngalewaat ak taalube yi jag nga jagleel nga jagal yoonu Cheikh Rami raw koo fi gis ma ngay bëngee ko xënte woo bégal sëriñam sër yu njëkk ci Touba njëkk a doon sëriñ Touba alaaji baara yaa ñu won ci moom ba ñu xam ni Ahmadou Bamba jógu fi ngir gaynde du jur muus garabu kaani doom jaa ko gën a wex sëtu gaynde gaynde lay doon suñ Muntaxa mooy sëriñ Touba jërëjëf mooy di jëfal sëriñ bi ndax am na xeetu toogaay boo xam ne bu amee ci nit ñi dootuñu xam li ñuy dunde lan la maa ngi lay yëgal na yoon wi nag du ay tabax rek déedéet dafa am lu taxoon sëñ bi samp yoon wi muy spirituellement muy wàllu yàlla li tax nit ñi di sosi ci yow saa su ne dañuy yëg yàlla ci yow saa yu ñëwee dañuy xam ne ku fees dell ak yàlla nga waaye dañuy yëgaat seen bopp ci yow mooy yow dangaa téyewul sa bopp ci dara ci ñoom képp ku ñëw ba teew ci yow dana yëg loo xam ni dana yàkkamtee delsiwaat loolu nag mbirum yàlla mi nga xam ne ku ñëw fii nga am loo ci tibb jox ko moo waral loolu sa sëñ Abdou Karim mën ngaa yaatal nit sëñ Abdou Karim bàyyi nga xel nit ndax teraanga ji yàlla def ci doomu aadama loolu ni nga ko xamee laa gisul ku ne ku ko ni xame te lépp sëñ Falloo yoroon yooyu melokaan rek sëñ Falloo meloon noonu moo moo doon taxawee noonu moo doon doxee noonu sëñ Fallou addiya bii ni daan teqali ko bariwaay bi benn bis mu def ko benn junni ne ko jëbb sëñ Fallou sëñ Fallou ne man de sama taalib bi posté bi wàcc na <laughs> ndax wenn këyit la xabu ko mu ne hee lii da doy na kii man nag xam nga nag kaa ma wax la mbir nag taalib bi am posté ba mu yàgg nga am lu yëg li wane ni posté bi daa wàññiku daa xaw a métti nag ndax la nga ko yaakaaral ak la nga ko bëggal te àggo te àgg sëñ Fallou àggoon naag sa maam foo xam ne faw sa maam dana àggale àggale baa ngi nii sëñ gaawaan la yot junni bi na ko xoolal ma lii waay soxna Gaye la ma ko jox kat te moom mel na nii daana joxe lépp lii kat borom gaawaan na ko fii ak 6 mois demal nga tëdd sa kër ba a génn sa aaj yëpp ay faju xanaa xamoo kii lim la jox mu ne ko ah ndegam yow noonu ko xamee nag naa la ko jox nga weccikul ma ko sëriñ gaawaan ko ko weccikul maamam te kaay yi wax la mi damaa leen wax sëñ Tuubaa ne li may def ci nit ndey ju liggéey mënu ko waaye duma ko def ci ku ndeyam liggéeyul kooku di maamam koo xam ni bu saxaar nga masaana korne sëñ Fallou la aajo yi faju na ndax bàyyi góoraa nga ne di wax te mus te ñàkk mel ni nga wax ñëpp di ko seet ñëpp di ko di ko xool di ko xool di ko déglu di ko déglu ñëpp maasi ci ñëpp maasi ci ah, loolu loolu day ku koy ku mbir ah loolu day ku koy jënde mbir boo koy jënd boo koy jënd. kala koy jaay. kala koy jaay. dem leen ci ruq ba rek. dem leen ci ruq ba rek. kenn bañ koo dégg. kenn bañ koo dégg. ku koy ku koy jënd mbir day. ku koy jënd mbir day. léegi tey. léegi tey. sa ñàkk a jarle. léegi tey sa ñàkk a jarle. dana siiw. dana siiw. moo tax. moo tax. di ko waxee ci biir mbooloo yi. di ko waxee ci biir mbooloo yi ne nangam dana am ne nangam dana am wala nangam du am wala nangam du am euh, di ko waxee ci biir mbooloo di ko waxee ci biir mbooloo wóorul wóorul ku ko de ku koy def léegi tey nga dégg ku ne ku koy defee léegi tey nga dégg ku ne ah waaye sëñ bi de démb neewoon na nangam waaye bi de démb na nangam dana am waaye daal mel ni ba tey daal dafa mel ba tey daal dafa mel ni daal ba tey daal waaye bu dee yéen ñaar rek ci néeg bi nag. waaye bu dee yéen ñaar rek yéen ci biir néeg bi nag yéen képp. nga yàllu ko ndànk. nga yàllu ko ndànk boole ci. bu ëllëgee. bu ëllëgee. bu melut na wax. bu melut na nga wax. yéen ñaar rek yaa ki la koy jaay. yéen ñaar rek yaa yaa la ko doon ñaanloo rek. la koy jaay rek ki la koy jaay rek. sëñ Fallou nag. sëriñ Fallu nag. bu masaan di wax lu ne nangam dana am. bu masaan di wax ne nàngam dana am. ci rajo bi sax la koy wax moom. ci rajo bi sax la koy wax sax par moom. wala wala bu dul ci rajo bi it. wala bu dul ci rajo bi it. fa mu koy waxee fa mu koy waxee. mbooloo dana fa nekk moo xam ne. mbooloo dana fa nekk moo xam ne. kenn ku ne. kenn ku ne. buy dem bu ko bu buy dem bu ko yóbbaalee. dem bu ko yóbbaalee. wax ja daj réew ma wax ja daj réew ma. noonu la daan def. nee sëñ Fall loolu la daan def moom. dafa dafa guddi. nee na dafa guddi. ne kon ma tojal leen ko ba mu leer nañ. na kon ma tojal leen ko ba mu leer nañ. waaye am na ci ñoo xam ne. waaye am na ci ñoo xam ne. xam nañ ko ni ma ko xamee. xam nañ ko ni ma ko xamee. buñ ko fekkewul it. buñ ko fekkewul it. am nañ ku ko fekkee koo am nañ ku ko fekkee koo xam ne. nañ ne. xam nañ ne lu mu leen wax dëgg la. lu mu leen wax dëgg la. te nettali na leen te nettali na leen. weer na weer na weer na loolu moo tax. loolu moo tax. mu moom woowu tur. moo tax mu moom woowu tur. te nga seetlu nag Adama Awa bi ñu wàccee. te nga nag Adama ak Awa ba ñu wàccee ba suñu joon yàlla tey. li fi wàcc ci doomu li fi wàcc ci ay doomu adama seetlu ko rek. seetlu ko rek. ba noppi nga seetlu tur wi nag. ba noppi nag nga seetlu tur wi nag. ba xam. ba xam. ndax late na. ndax late na. waaw. ndax latte na wala déet. ndax latte na wala déet. tur nga seet tur wi. nga seet tur wi. ni mu wéetee. ni mu wéetee. seet mbooloo mu fi wàcc. seet mbooloo mi fi wàcc. kooku nag. kooku nag. ku muy sa xarit. ku muy sa xarit. boo tëddee war nga nelaw. boo tëddee war ngaa nelaw. te. te. sëñ Fallou. sëriñ Fallou. seen xarit la. seen xarit la. ak sa ak sa yéen ko def xarit yéen yéen a ko def xarit moo tax ngeen def nii moo tax ngeen def nii koo deful xarit koo deful xarit doo ko def nii doo ko def nii ak sa ak sa sëñ Fallou nag sëñ Fallou nag boo ko defee xarit boo ko defee xarit mu def la xarit mu def la xarit sëñ Fallou nag ku xaritoog moom sëñ Fallou nag ku xaritoog moom doy na doy na doy na doy na doy na adduna ak alaaxira na adduna ak alaaxira na moo tax moo tax ku ci ne moo tax ku ci ne boo tëddee nelawal rek boo tëddee nelawal rek moo tax moo tax bu ngeen delloo moo tax bu ngeen delloo gën a góorgóorlu rek gën a góor góorlu rek ci rafetal ci rafetal rafet jikko ak mbaax ak mbaax di moytu di moytu luñ lay sikki lay sikki rek li xew ci jamono li xew ci jamono mooy mooy mooy mooy di di teqtalante rek mooy di teqtalante rek ku dox bëgg a jëm ci lu koy jariñ sax ku dox bëgg a jëm ci lu koy jëriñ sax nga nga fas ko yéenee teqatal. nga fas ko yéenee teqatal. mu daanu mu daanu. ba du yegg ba du yegg. nañ ko moytu bu baax. nan ko moytu bu baax. ndax ñaare. ndax ñaare. ki bëgg a teqatale. ki bëgg a teqatale. ñaare moom la moom la moom moom la bëgg a teqatal googee di wàññi. ñaare moom la bëgg a teqatal googee di wàññi. ndax yàlla moom. ndax yàlla moom. bu naree nga yegg. bu naree nga yegg. kenn mun laa téye kenn mun laa téye bu ko defee nag bu ko defee nag ak ñaaw njort yi ak ñaaw njort yi nit ñi bari na bari na bari na lu ñuy lu ñuy luy yàq lu bari nit ñi bari na luy yàq lu bari ci àdduna bi ñu di ci xuloo di ci xeex di ci xuloo di ci xeex di ci werante di ci werante te ñaaw njortu rekk la te ñaaw njortu rekk la la ñuy foog. lañuy foog. wala ñu di ko yaakaar. wala ñu di ko yaakaar. mu jaral leen xastanteeg rayanteeg xulóog lu ne mu jaral leen ko. mu jaral leen xastanteeg rayanteeg xulóog lu ne mu jaral leen ko. bu buñ buñ boo ko boo ko seetoon ba biir a biir. boo ko seetoon ba biir a biir a biir. lañ ko teg lañ ko teg. du doon moom. du doon noonu. du doon moom. du doon moom. ñaaw njort. ñaaw njort rek. yooyu yëpp nañ ko moytu. yooyu yëpp nañ ko moytu. nekk noobul maanaam noobul dama koy wax saa nekk. nekk noobul noobul dama ko wax saa saa su ne. baat bu ma fonk la. baat bu ma fonk la. noobul mooy nit koo xam ne. noobul mooy nit koo xam ne. dafa am maanaa rek dafa am maanaa rek. ay waxantoog ay waxantoog ay ñàkk faydaak ak ay ñàkk faydaak yooyu yëpp waxuma sax di ko xalaat waxuma sax di ko xalaat waaye da dul ne da da nekk sax mbiram ko du ko gis du ko dégg du ko gis du ko dégg du xalaat yooyu du doon ay ay ay ay mbiram du ko xalaat yooyu du doon ay mbiram nit ku am maanaa nee na nit ko am maanaa foo ko fekk foo ko fekk mu ngi xalaat mi ngi xalaat lu ko jëmee kanam lu ko jëmee kanam ak lu ko may tuyaaba joo xam ne. lu ko ak lu ko may tuyaaba joo xam ne. bu ëllëgee bu ëllëgee. yàlla fay ko yàlla fay ko. mu dugg aljada mu dugg aljada. nit lay xalaat. nee na nit ku am maanaa loolu lay xalaat. te àdduna. te àdduna. ku fi nekk. ku fi ne. faaw nga yëg ne yaa ngi fi. faaw nga yëg ne yaa ngi fi. di wut loo fi nekkee. di wut loo fi nekkee. ndax barab boo fa nekkee. ndax barab boo fa nekkee. te xamoo kañ nga fay jógee. te xamoo kañ nga fay jógee. faaw nga wut loo fa nekkee. faaw nga wut loo fa nekkee rek. kon wut loo fi nekkee. kon wut loo fi nekkee. lu baax la lu baax ñu bañ koo def nag muy kër nag. waaye ñu bañ koo def nag muy kër nag moom. ndax loo loo loo fi gis du mujj fenn. loo fi gis du mujj fenn. mooy mooy nii nga gis gone yu bari di ko def rek. mooy nii nga gis gone yu bari di ko def rek. diwut xaalis di wut xaalis. te fonk sëñ Tuubaa. te fonk sëñ Tuubaa. ak di ko liggéeyal ak di ko liggéeyal. loolu mooy liggéey bi mooy bëgg bëgg bëgg am loo fi nekkee liggéey bi mooy bëgg a loo fi nekkee fonk gi sëñ Tuubaa fonk gi sëñ Tuubaa mooy xam ne da fi jógee mooy xam ne da nga fi jógee fa nga jëm nag fa nga jëm nag nga fekk fa loo fa nekkee nga fekk fa loo fa nekkee xam nga li ngay wute loo nekkee nga xam ne li ngay wute loo nekkee fii ma ne nga xam na nga xam nga ne li ngay wute loo nekkee fii xam nga ne li ngay wute loo nekkee fii noonu ngay wute noonu nga war a wute loo nekkee fee ndax sëriñ sëriñ Abdoul Ahad dafa wax ne. ndax sëriñ Abdoul Ahad Mbacké dafa wax ne. daf daan wax ne. wax ne. dafa am foo xam ne danañ fa dem. dafa am foo xam ne danañ fa dem. te munta ñàkk. te munta ñàkk. te foofa. te foofa. nanguwul. nanguwul. jekki bay dem. jekki bay dem. bokk yóbbaale. bokk yóbbaale. nanguwul dem ba noppi. nanguwul dem ba noppi. ne la ma fa bàyyi woon. ne la ma fa bàyyi woon. nañ ma ko yët. nañ ma ko yët. waaye nag nangu na. waaye nag. nangu na. nañ ma fa yóbbul lii. nañ ma fa yóbbul lii. bu ma bu ma demee fekk fa. bu ma demee fekk fa. mooy nii ngeen di def. rek. yàlla na leen yàlla dimbali bu baax. Afe Jaw gërëm naa la bu baax. Afe Jaw gërëm naa la bu baax. yaa mboolem ñi ngay àndal. yaa mboolem ñi ngay àndal. Euh, sa taxawaay ci ci ci ci sëriñ bi. sa taxawaay ci sëriñ bi. rafet na rafet na. sëriñ Modou Moustapha daana wax ne. sëriñ Modou Moustapha daana wax ne. yéemu ku tàmbali. yéemu ma ku tàmbali. ku yeggale laa yéem. ku yeggale laa yéem. lii bi ngeen ko tàmbalee ba léegi. te yéen lii ba ngeen ko tàmbalee ba léegi. bis bu ne. bis bu ne. yokk ngeen ci dara. yokk ngeen ci dara. lu leen ci jëme kanam. lu leen ci jëme kanam. kon nag. kon nag yàlla na leen ci yàlla jàppale. yàlla na leen ci yàlla jàppale. waa maa maa ak waa waa waa Gédé daayira bu mooy daayira boobu ñëwoon léegi wala xamu daayira wala mbooloo. mbooloo mi ànd ak maajoor te ñëw léegi jógee Gédé. seen taxawaay rafet na. nee na sëriñ bi nee na seen taxawaay rafet na. ñoom. ñoom. seen taxawaay. ñoom seen taxawaay. li ko tax a rafet. li ko tax a rafet. nit. nit. bu dëkkeek yow. bu dëkkeek yow. boo ko meree. boo ko meree. ba mu jóge fa. ba mu jóge fa. doo ko doo ko topp. doo ko topp. ñee. ñee. ñëw gi ñuy ñëw. ñëw gi ñuy ñëw. di jóge Gede. di jóge Gede. di ñëw fii. di ñëw fii. loolu rafet la. loolu lu rafet la. ndax dafay li muy li muy nuru. ndax li muy nuru. mooy. mooy. ba ma fa nekkee. ba ma fa nekkee. xëy na merewuñ ma xëy na merewuñ ma yaakaar naa buñ ma mere yaakaar naa buñ ma mere woon kenn du leen gis fi tey kenn du leen gis fi tey loolu loolu loolu am njàngale la loolu am njàngale la loolu loolu maa leen ci ñaanal bu baax nee loolu yéen waa Guédé mi leen ci ñaanal bu baax nee na bis ba rek boo ko mën a indale na ngeen ñëw na ñëw buñ dul buñ dul gisee baa ñuy nuyoo sax. buñ dul gisee baa ñuy nuyoo sax. ñëw ba ngelawal ndindi ne ëpp la aslëf. ñëw ba ngelawal ndindi ëpp la aslëf. yéen a ngi ko gis nii kat ñoo ngi toog muy taw mas ngeen gis taw yéen a gis nii kat ñoo ngi toog muy taw mas ngeen gis taw waxtu wi. déedéet déedéet loolu la ndindi di wane. Mm-hmm. nee na loolu la ndindi di wane. Oh, taw bi defe naa yéen ko andi de. ah taw bi de man defe naa yéen a ko indi de. yéen ñi nga xam ne. yéen ñi nga xam ne. yéen a dajale seen i ñaq. yéen a dajale seen i ñaq. ñëw ñëw. ngir màggal bisu sëñ Fall. ngir màggal bisu sëñ Fall. sëñ Fall won na leen sëñ Fall won na leen ni. li ngeen def li ngeen nangu naa ko nangu naa ko gis naa ko. maa se leen tàllal loxo yi bu waay ne dafa tàllal. amiin te bu ñaanee ñu jóg. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin Mbacke amiin amiin amiin Mbacke amiin amiin amiin Mbacke